daa bëgg a wax sarti julli ba àggal door a wax farata yi mbaa li ngay tudde ay ponk bu ñu nee nangam sart la ak bu ñu nee nangam farata la mbaa ponk la daañu di nuroo ci wet ba noppi nag wuute ci wet ndax lu ci nekk bu amut loola du am waaye sart moom day génn ca dëgg-dëgg mbir ma maanaam du dugg ca biir dëgg-dëgg mbir ma te farata mbaa ponk nag loo ko ci tudde baax na day bokk ca dëgg-dëggi mbir ma bu ñu nee nàngam sart la ci julli mooy faaw mu am rekk julli door a am manes naa doogu ne su amut moom te mënoon naa am julli ga du baax waaye nag mën naa am ba noppi te du tax nag julli ga baax ndax leneen a koy tee baax tey def sarti julli yi ñaari xaaj sarti wér ak sarti war yu njëkk a tudd nii mooy sarti war nga xam ne bu ci amut julli ga du war jëmm ja yaari way yee ci topp nag ca lay waxe sart ya nga xam ne mooy sarti wér ga kon sart yi da koy def ñaari xaaj waaye mën nga ne sarti julli yi dañoo def ñetti xaaj dafa am ñaari sart yoo xam ne moom dañu doon sart ca war ga nga xam ne bu ca benn ñàkkee julli ga du warati kooka benn bi mooy kàllafe bu dee gone julli waru ko waxoon na nag bu amee juróom-ñaari at ñu sopp ñu di ko digal julli bu amee fukki at ñu koy digal te bu bañee ñu dóor ko ca waaye daal gone moom julli waragu ko ñaari ba mooy ñu bañ koo forcé suñ ko forcé ne ko doo julli boo jullee ma rey la kon julli ga wàcc na ko ba forcé ba dañ li fekk forcé bay dañ rek julli waru ko waaye nag li tax ñu ne yooyu yaar sarti war rek lañu gone xam nga ne bu jullee julli ga dana wér wax nañ la sax sopp ga ak nañ ko ci dóore bu amee fukki at buñ ko forcé ne ko loo julli boo jullee ñu rey la nee nañ julli ga waru ko waaye nag su dogoo ci daay julli fexe ba julli itam julli ga dana wér sarte yi tax nag bu jullee julli ga wér sayo boo njëkk caa tudd tàbbi ci lislaam wóote naag ni mu waxee moom mi taalif ndax tàbbi ci lislaam moom da koo boole ci sarti warga waaye sayo boo boole ko yow ci sarti wërga jàpp ne ab yéefar julleeg mboolem ponk lislaam yi war na ko ba noppi te bu ëllëgee daañu ko bugal ci ñàkkan ngaa def waaye nag balaa dara baax ci yooyu mu dugg ci lislaam bu julli woon te dugg ci lislaam itam julleem nga du wér kon dugg ci lislaam danga koy boole ci sarti wér ga te bañ koy boole ci sarti war ga ñaareelu sarti wérug julli ga mooy mu amee laa bu xabas maanaam ñàkk a julliwaale sobe soo xam ne fàttewu ko moo ko tey te mënoon naa tàggoog moom ñetteel ba mooy mu amee laa bu ko xadas moom lu tudde yëkkati am topp mooy bu ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata waree mu sangu farata bu ko tiim waree mu tiim ñeenteel mooy sàng awra la war a sàng ci awraam daañu leeral léegi awra na mu teqalikoo am ju ñàng am ju ñàngut sàngoogu awra sart la ci wérug julli ga nga boole ci nag jublu kaaba ga maanaam bu nekkee biir màkka mbaa la ko wër day julli jëm ca jëmmi kaaba ga bu fekkee dafa sori nag foofu bu fexe ba julli rek jëm fa nga xam ne fa la kaaba ga féete da cee boole nag moom bu ko seetaa bi ci julli gi bàyyi lépp loo xam ne dafa dàqonte julli mel ni wax ju ajugul ci julli gi ak jëf jëf ju bokkul ci julli jëf ju bari ju bokkul ci julli bu dee julli def ko rek julli gi yàqu dañuy xamee ne mi ngi def ci julli gi jëf ju bari ju ju bokkut mooy muy defee noo xam ne ku ko sénne waaw xanaa kii julliwut loolu kon ma ngay def jëf yu bari yu bokkul ci julli day daal di yàq julli ga sart yi nga xam ne nag dafa nekk di sarti war boole ca di sarti wér juróom benn la mën ngaa jëkk a wàññi xel maanaam ànd ak sagoom ku dof wala mu tàggoog sagoom ba waxtu wa jeex mbaa da des ci waxtu wa laab am ci barak xaju fa julli ga wóoru ko wàcc na ko faaw te jamono bu fekkee daa miinoon julli ba tax ndox ga teewut muy jullee nañu war a jullee it du tax julli ga wér ndax ñàkk ànd ak sagoom mën nga caa teg jot wooteeg yonante bi maanaam yëg ne yàlla yónni woon ab yonante muy woote lislaam te lislaam julli ca la bokk ku nekk ci béréb di fa dund ba génn àdduna te mës sa yëg ne yàlla yónni na ab yonante kenn du ko teg dara kenn du ko laaj dara kon nag julli waru ko te bu doon tàndalee di julli itam julli ga du baax ñaara ngoog mën nga caa teg waxtu wa jot su waxtu wa jotut julli du war te ku julli itam du wér mën nga caa teg bu dee jigéen mu set ci dereti mbërëg ak dereti wasin jigéen bu amee dereti baax wala dereti wasin li fekk muy jeex julli du ko war te araam na ci moom mu song di julli bu jullee it julli ga du wér ñeent ngoog juróomeel mooy mu am lu mu laabe la ñuy laabe benn muy ndox wala luñ mën a tiime niki suuf na am kenn ci yooyu yaar ab sart la buy tax julli war ko te bu jullee jëfandikoo loolee ñuy laabe julli ga wér su waxtu wi jotee ba jeex te amu fa dara ci yooyu yaar julli ga wàcc na ko juróom benneel te moo ci mujj mooy ñàkk nelaw ñàkk fàtte ndax kuy nelaw mbaa ku fàtte suñu borom du ko bindal dara day mel ne ku waralul ci moom dara ci yooyu jamono gannaaw bu nelaw yaag fàtte ga jeexee nag ñu sàkku ci moom lañ ko digaloon rek kon ñàkk nelaw ñàkk fàtte dañ ko boole ci sarti wér ga boole ko ci sarti war ga waaye daa mel ni nag kuy nelaw ak ku fàtte moom mënta julli ca yooyu jamono maanaam ak julli mënta ame ci moom ci yooyu jamono mbaa boog lu jafee gis lay doon daal da nga di dégg nag kàllafe ñu koy tudd lu bari kàllafe nag wutal nañ ko juróomi màndarga yoo koy xàmmee yenn yaar ya jigéen rek moo koy amee te mooy gis deret muy li ñuy wax baax mbërëg mbaa nga ne reegal muy benn ak ëmb yooyu yaar jigéen ko jagoo am na yett yoo xam ne góor ak jigéen ñoo ci bokk yam ku ca nekk mën nañ caa xàmmee sa kàllafee ba ci jëkk mooy gént génne mani yu ñaareel ba sax kawarug naq ñetteel ba am fukki at ak juróom-ñett bu dee ci yoonu Malik da am nañu wax fukki at ak juróom bul fàtte ne kàllafe googu moom bokkul ci sarti wérub julli daa bokk ci sarti warub julli teqale woon nañ la ne la gone daañu ko digal julli nga xool nag aful xadas yëkkati am toj mais mu njëkk wax tan waxoon ne mooy su ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata waree mu sangu bu ko tiim waree mu tiim yooyu moom dañ ko diisal lool su ko fàtte woon defut la war a def ci yooyu julli julli yu bare bare it yépp a yàqu yépp lay baamuwaat su fekkoon nag dafa tële yett yooyu moom da koy daal di wàcc ndax lu mu ci mënul rek mu daal di koy wàcc waaye lu mu ci xës man moom fàtte ko du tax ñu jégal ko ci dara lu mu julli woon rek te defut la war a def moo xam jàpp la moo xam sangu faratal moo xam tiim la fàtte ga tax mu julli ay julli yépp rek lay baamuwaat boo delloo ci sàng awra itam maanaam sàng lam war a sàng ci yaramam bu dee julli dañ ciy teqale góor ak jigéen kenn ku ne ci ñoom ñaar am na awra ju ñàng-ñàng joo xam ne su ko sàngut te tey ko te amoon na lum ko sànge julli ga du baax am nag yeneen awra joo xam ne ñàngaluñu ko moom bu ko sangutit dañuy sopp rek mu baamu ca waxtu wa bu ñu nee rek li tàmbalee jumbax ba ca batiwoom bu dee góor mooy awraam am na googu teqale yemale wuñu diggante boobu lépp lépp buntu suuf bi ak sawukaay ba ak la leen wër lañu jàppe awra ju ñàng ñàng la ca des nag te bokk ci diggante jumbax ak batiwoom moom lañ jàppe awra joo xam ne ñàngut ba noppi nag taxul lépp lépp yemoo àtte ndax njekkikaay ba mbaalu ca bokk bu dee julli bañ koo sàng daañu sopp moom góor gi mu baamu julli googee ca waxtu wa lu bokkul nag ca njakkikaay ba ni ki jumbax beeg na ko wër wala lupp yi jëm si ci woom yi bu ca dara dee feeñ itam du tax ñu sopp mu baamu ca waxtu wa jigéen nag dañu wax ne yaramam wépp awra la ba mu des kanam gi ak tenq yi ak biir ñaari ndëggu ya awraam ja nga xam ne nag moom lañu ñàngal nga xam ne su ko mënee sàng te sangu ko rek bu jullee julli ga du baax da koy baamu faw faw mooy la tàmbalee ca dënn ba ba ca batiwoom ya ak la tolloog loolu ca gannaawam loolu lañ jàppe awraam ju ñàng nga xam ni bu ko tayee am lu mu ko sànge te sàngu ko rek moom jigéen ji ba muy julli julli ga du baax la dalee ca dënn ba jëm ca bopp ba ak li tàmbalee ci bëtiwoom yi jëm ca ndëggu ya lañ jàpp ne awra la ci jigéen bu dee julli na ko sàng waaye du awra ju ñàng awra ju woyof la nga xam ne bu dee julli dara ci loolu di feeñ rek julli ga dana baax waaye dañuy sopp mu baamu ko ci waxtu wa maanaam bu waxtu wa jeexut na dellu julliwaat te sàng loolee waaye la dara ci dënn ba moom ba ca bëtiwoom ya muy ci kanam muy ci gannaaw mooy awraam ja ñàng-ñàng nga xam ne bu dee julli lum ci feeñal tay ko mënoon na koo sàng rek julli gën a yàqu faaw da koy baamuwaat bu ñu nee bu feeñalee awra ja woyof dañuy sopp rek mu baamu ci waxtu wa na xam ne kon kat bu dee tisbaar ak takkusaan dañu sopp mu baamu leen ku mu ci mën doon ci ñoom ñaar bañ àgg ci isfiraar isfiraar mooy takkusaan yi suuf fa nga xam ne fa la muxtaarum takkusaan yam bu dee timis wala gee moom kum ca doon dañuy sopp ñu baamu ko ba fa seen daroor yi yam te mooy fenku fajar bu dee suba it dañuy sopp ñu baamu ko li feek daroor yoom jeexut te daroor yoom ma nga yem ca fenku jant ba tey nag jigéen war naa seetlu ne su nekkee jàmbur bu góor jàmbur bu góor mooy koo xam ne araamut ñu sëy ñoom ñaar kon moom jigéen ji yaramam lépp la war a sàng ba mu des kanam nga ak teng ya ak biir ndëggu ya su fekkee nag nekkut ak ab jaambur bu góor toogul foo xam ne ab jaambur bu góor mën na ko faa fekk génnul jëm fenn niki ka mu toogal day koo xam ne mënuñoo sëy niki magam ju góor mbaa rakkam ju góor mbaa baayam mbaa maam ju góor ak daal képp koo xam ne rek araam nañu sëy ñoom ñaar kon lam sañ a feeñal moom jigéen ji moo di la tàmbalee ca dënn ba ba ca bopp ba jëm ca kaw ak li tàmbalee ci bëtiwoom yi jëm suuf nde du sañ a feeñal dara lu bokk ci la tàmbalee ca dënn ba ba ca bëtiwoom ya di tàmbalee dënn ba ci bëtiwoom moom faaw rek war na koy sàng doonte sax góor ga mu bokkal toog da di baayam mbaa maamam ju góor mbaa keneen koo xam ne rek mënuñoo sëy ci yoon bu dee nag jigéen ji ay moroomi jigéenam rek la bokkal toog te ñu di ay jullit ne moom kon la dale ca jumbax ba ba ci batiwoo mi rek moom la war a sàng sañu koo bañ waaye lu bokkut ak loola mën na koo bañ a sàng gone gu jigéen nit bu tolloo ci juróom-yaari at jëm kaw daañu sopp ci moom mu soloo ne mag ñi soloo li taxul sax mu war ko